tout téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel ci ATV la première télé urbaine de Mbour euh, tubarkàlla ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax comme ni ñu koy amalee rek ci seen émission Petite Côte by Night euh, bu ngeen gisee fi ma taxaw di ngeen laajte lan moo xew ndax ku ne xam ne ni Petite Côte by Night ci li muy dox euh, moo di événementiel tey ñu ngi fi nga xamante ne moo di Escale Night Club nekk ci route de préfecture route préfecture tubarkàlla bi nga xamante ne la lion de la musique sénégalaise ki nga xamante moo ko soxla ki nga xamante ne dëkk bi moo ko bëgg ki nga xamante ne doomu aadama yi ñoom ñoo ko de la musique sénégalaise Ndeye Fatou Tine de son vrai nom wara a fi nga xamantene ne Escal Night Club fi nga xamantene moy Mbour tubaarkàlla di le 12 juin lay doon à partir de 23h fi nga xamantene moy Escal Night Club gannaaw li nga xamantene moy mooy ubbeeti bi maanaam li nga xamantene moy mooy tijji bi ci kanam tuuti danañu dugg ci biir anandoog ñi nga xamantene ñoy ñooy ci artistes yi nga xamantene ñom la wara andal waye waaye tamit danañ anandoog ñi nga xamantene ñoy di wa Zéo Prestige ñi nga xamantene ñom ñoko ñoo di andi Mbour ki nga xamantene ne la réew mi taamu dëkk bi bëgg ko askan bi daal di koy bëgg ci kanam touré lay doon ci biir Escal Night Club bu ko defee ñu daal di àndandoog ñenn artistes yi nga xamante ne ñoom la war a àndandool euh, ci li nga xamante ne moo sur scène euh, moo di sama caméraman maa ngi lay jaajëfal baax a baax mais bu ngeen gisee fi ma génn euh, moo di Fodé Touré borom TK Couture maa koy jaajëfal baax a baax moo di bu baaxee nañu dem ci biir waaw mm. waaw li ko waajal rek di ko ñëpp waajal mm. incha allah rabbi mm. te di moom du yomb xam nga mooy laaj li ñëw dajeeg Maman Africa première partie loolu mënul yomb non du mën a a yomb mais ñu fekk la tamit ngay joué benn musique boo xam ne mooy acoustique mm-hmm. euh, ndax am ci jour ba acoustique ngay andi wala ambiance ngay andi wala folklore ngay andi waaw ñun nag afro la def acoustique so lépp la fii ñëw jour boobu daal dara du fii daal musique fi def musique daal ngeen def partie bi daal uh-huh. dina xumb dina dagat dina xumb dinañ def ne public bi ñu ngi koy xaar rek danañu ko am ci jour ba incha allah dinañ ko fi fekk. ok lan moo la dugal ci way mu Africa. man nag way en fait euh, patient la. Mhm. parce que man maa ngi génne école nationale des beaux arts en mhm. laa génne école nationale des beaux arts. Mhm. donc euh, dem jàngi ko xam nga hmm. nit bo lo wara def métier da koy jang man ko hmm. donc lolou mo ngi ci jugal depuis boobu ñi ngi jouer hmm. ñi ngi jouer Sénégal di ngi jouer international international ñi ngi jouer ci festival yu mag machallah donc sant yalla sant yalla bi moy euh, defe naa bii mooy Maman Africa is back parce que ça fait depuis 2012 nek ma fi won donc bi bii mooy sama première jouer bi mais depuis 2012 fan nga nekkoon ma ngi diggante Maroc ci yeneen pays étrangers yi ci festival international yi donc euh, xam nga ñun musique dañ ko dañ ko def patient. Mhm. donc di ko liggéey jàngu ko. Mhm. donc ci lañ nekk daal. Mhm. mooy suñu mooy suñu liggéey. waaw donc on peut dire Maman Africa is back ndax depuis 2012 yaa ngi joué fu ci mel ni Maroc yaa ngi joué ci yeneen dëkk yi nga xamante ne euh, ñoo war Sénégal tey titi ñoo war a ñëw fi nga xamante ne mooy Escale la 12. Euh, mu doon bis boo xam ne Mbour ñu ngi koy xaar mu doon bis boo xam ne ndaanaan yu ci bari dañu ko taamu muy fukki fan ak ñaar euh, ci weeru juin tey lan ngay ressentir bi ñu la woy ne la Maman Africa première partie bi yaa ko joué. waaw mbégte <laughs> <laughs> mbégte kontaan naa ci torop macha allah. Mm. kontaan comme mm. comme tout le monde. Mm. xam nga musique moom dafa universelle te Titi ñëpp xam nañ ne. dafa mën a woy macha allah naanaan la. moom ku nar a moom du yomb ci yow boo tëddee sax doo nelaw da xalaat. <laughs> ba tax na yaa ngi koy répété quoi. <laughs> ah gis nga ñi gis nga yaa ngi nii gis nga. non yaa ngi koy waajal quoi. ñi ngi waaj bu baax macha allah. mais est dina yomb. non du yomb. non mënul yomb sax TV la première télé urbaine de Mbour ñi nga xamante ne ña ngay wax jël ñëw ci Escale Night Club le 12. Mhm. nga leen wax bu ñu ñëwee lan lañ fi war a fekk dinañu fi fekk sañse wala duñ fekk sañse fekk ambiance wala duñ fekk ambiance. waaw loolu nag moom defe naa ni fuñ ne titi ne maman Africa. Mhm. nga war a ñëw mhm. daagu dugg Escale. <laughs> du yomb. donc xale yi nañ def talon yu gudd. robb bu mu des dakaar bu mu des Sénégal daal na ñëpp jóg. Hmm. xam ne tiiti moo woote. Hmm. ak Mama Africa te du hmm. yomb te mënu sax yomb nag. waaw. ayca rendez-vous kañ. rendez-vous le 12 incha allah rabi. le 12. waaw fii ci Espagne dana neex dana yëngu ko dina neex dina yëngu. mën a lax. bu lëg soxloo Dakar ku yéeg daanu maa wax lii ayca gannaaw liggéey bi mu ngi lay tënk ndax ñu ngi la fekk sa répétition déranger la indi la fi nga xamante ne mooy ci plateau bi euh, tey dañu lan mooy doon dernier mot waaw dernier mooy nag euh, mhm. ñu ngi woo ñëpp rek ci la mhm. douze bi mhm. di leen remercier yéen waa a a ATV ATV ñu ngi leen di nuyu macha allah di kontaan ci ñëw bi ngeen ñëw def déplacement ñoo toog fii waaw kontaan nañ daal. en tout cas bis ba danaa ñëw de bu ma fekkul ambiance maa ngi yow dañuy raag de. incha allah da nga ko fi fekk. ah ayca ma bàyyi ko mu daal di dellu ci li nga xamante ne mooy répétition ba di leen jaajëfal baax a baax mais ci kanam tuuti danañu dalal ki nga xamante ne mooy gérant l'escale club night mi nga xamante ne moo war a dalal la lion de la musique sénégalaise ki réew mi taamu askan bi bëgg ko ki nga xamante ne mooy l'ambianceur des ambianceurs la lion de la musique sénégalaise Ndeye Fatou Tine de son vrai nom Neskis ñu daal di dalal ki nga xamante ne mooy gérant l'escale night club. Diop mu ngi noonu juste après ki nga xamante moom la taxaw loon moom it dig nañu li nga xamante mooy ambiance dig nañu li nga xamante ne euh, fekk ay sañse dig nañu lépp loo xam ne bu ñu ñëwee euh, dinañ ci mën a kontaan dinañ ci mën a béggee euh, maa ngi taxaw nga xamante mooy adjoint général grand maa ngi lay béggee maa lay sant di la seen tawaay bi ngeen ñëw fii nii mm-hmm. ci l'Escale mm-hmm. l'Escale bi nekk fii ci centre ville bu Mbour mm-hmm. discothèque boo xamante ne ne mm. dañoo nekk ci relancement boo xamante ne mm. temps yi waaw mm. ñu ngi organisé samedi bi nag le 12 bi titi lañ fi andi waaw def nañ ko bii la fois passée ak Assane Ndiaye bii titi lañuy andi nag 100 pour cent amiage ñu ngi garanti waa Mbour yëpp Mbour gi yëpp ñu ngi ciy woo ci code bi tout le monde ñëpp bàyyiwuñu kenn nag samedi bi mais gis nañ ne booba léegi yéen a ngi àndandoog ñi nga xamante ñoo di waa Géo Prestige ku ne Géo euh, xam ay ndaanaan ñi nga xamante yàgg nañu décroché artiste bu nekk andi ko fi nga xamante ne mooy ci Petite Côte bi waaye tamit euh, ñu collaboré ñi nga xamante ñoo di waa L'Escale Night Club la fois passée ngeen andi fi Assane Ndiaye mu bum loolu bii ngeen xëcc nga xamante ne moo di la Lion de la musique sénégalaise Ndeye Fatou Tine de son vrai euh, doon bis xam ne ndaanaan yu bari dañu ko jàpp que ça soit Ndakaaru que

Hmm. ok jour bi donne le 12 juin entrée bi ñata la. entrée bi le jour ji 7000 7000 7000 VIP. VIP 7000. non VIP 12000 VIP 12000. VIP 12000 normal 7000. 5000 ak 8000. Mhm. waaw. 8000 VIP 5000 entrée simple simple avant titre bi amna le groupe bi. Mhm. Euh, Maman Africa. Maman def premier partie partie mhm. tous les jours orchestre chaque jour du lundi au dimanche. chaque jour en tout cas du lundi au dimanche euh, euh, Club ay euh, ay soirée euh, bu ngeen la neexee mën ngeen ñëw jël li nga xamante moo di seen pot euh, lépp lu ngeen yitewoo ci bànneexu bakken rek dafa mel ni am na fi nga xamante ne Escale Night Club. loolu dëgg am na fi muy dañuy tijji de 7 mm-hmm. heures du soir. 7 mm-hmm. heures 24 heures sur 24 la ñuy fonctionner. Mm-hmm. soirée sénégalaise salsa. zuk rap lepp ngi fini ci escale bi chaque jour say ñoy rek am nga équipe bu charmante bu la fi accueillir mhm. service bi nice tranquille quoi ñu ngi woyé lepp wa petite côte bi tout le monde wa Sénégal ñep ñu dekk kep ku ñew mbour mën nga ñew jaar escale ñew am na ay chambre am na lu hôtel la mhm. am na discothèque mhm. ñu ngi woyé ñep dal way mais le 12 bi dal ñu ci woo ñep ñu ñew ci titi bi en tout cas le 12 du yomb quoi le 12 du yomb ambiance assurée ambiance assurée le 12 lepp nga fi quoi lepp lepp lepp lu way ñu yaakaar ci ambiance mu ngi fi ñu yaakaar ci ambiance mu ngi fi le 12 bi kon doon lépp a ngi fi. nga ñëw escale kañ moo nga fay toog mën nga fay añee reer yaa tout jël boobu waaw. Ah, maanaam lépp a ngi fi quoi. lépp a ngi escale yaa tout dedans tout amul lenn lu ñu fi bàyyi yaa tout ah, bu ma ñëwee jaar. lépp waaw boo ñëwee di nga fekkee ñoom Mame Diarra moo ñu kii waaw ñoom mhm. équipe bi fi nekk daal fii daal lu waay bëgg daal bu fi ñëwee daal ni ko fekk mhm. ci escale bi night club ñu àndandoo ko de la musique sénégalaise ki mi bëgg adduna euh, daal di koy bëgg xale yi bëgg ko mag ñi bëgg ko ndaw ñi bëgg ko kooku mooy la de la musique sénégalaise Ndeye Fatou Tine de son vrai nom ci escale night club euh, comme ni mu ko waxee sànq euh, du lundi au dimanche escale night club dina 5 heures ou bien 6 heures du matin lépp lu ngeen yitewoo euh, luy bànneexal euh, seen dund rek am na fi nga xamante ne mooy Escale Night Club euh, kon rendez-vous le 12 lay doon ci kattanu yàlla sunu borom ayca mu ngi doonoon seen émission Petite Côte by Night ak di DJ Paco Lom Lom Night Club non Lom night club. Lom ndax man ci ay night club rek laay dox. maa la ko wax doxuma ci leneen loolu night club. night club nga dama bëgg ambiance. ambiance ambiance kon di lundi dimanche mën naa ñëw. barki yàlla barki yàlla fii. ambiance grand man loom wax dama koy def de. rang muy gaaw la. ah rang muy gaaw léegi mu eh, ambiance bu dem. <laughs> baax a baax sama caméraman Mori lumière bi euh, Pape Fodé maa ngi lay bëggee bu baax a baax ciao bye bye ba 12 incha allah samedi ak jàmm ci kàttanu